Ah, On va recommencer. On vous rappelle que le Sénégal. Le Sénégal est champion d'Afrique Avec. e campagne, deuxième session, demi tour am na lu xew de. lan la lu xew. ku yëg li xew. man El Hadj Diouf. da meew. da ngaa réew. yow yaa gën a réew mu jeex takk ku yëg li xew. man mi Ousmane Sonko. waatal. wallahi astaghfirullah. ana sa preuve. vidéo baa ngi fi mun naa leen ko envoyé. soko ko mo ci kasso ngay dee lu ci góobee gar ko ñeme ko publier amul luñ ci ragal kon de mak dina la jël ci ñong koy xaar do ma way vidéo bi ma xool ñoo lànk <laughs> envoyé ma li nga naan lu sa yoon xanaa yor nga vidéo bi mais sayon newu ci vidéo bi fu ko mën sax bo nga ci google léegi gis ko man duma ko google de boo demee youtube diko gis dégg naa gis nek première dame la illa illa illa la ko waxé fan wan Branco moko wax katchina katchina non non Idriss sax moo ko wax. booy wax ne fan lay def. wéé. naam. yëngali xew. yëg naa ko. vidéo bi daw si réew mi laa wax. ah loolu de yëguma ko. balaa nga ni yëg naa ko doo xaar xam lan la. <laughs> ana Tata Mariam. problème yaa ngay démarré la problème yaa ngay démarré. tremblement deful dara. deful dara. so gis video daa nga xàmmee. bu baax. am na lu ñu koy tuumal de. loolu yàgg na fi. ci ay affaire le motif. loolu ay waxu caaxaan la rek. ki nekk si vidéo bi du moom. déedéet déedéet. ko waxul dëgg. en tout cas wax ji bare na. loo mënti def dinañu wax. bu gaan vidéo bi nee am na de. man gëwuma loolu. yow moom mosoo gëm dara. loo may wax ni. instant bi moom kenn noo yetul. man de damaa rus. gàcce dama bëgg a rey. ma lu leen dal. RB Bento ma wan video bi. merci merci. ah, merci. moi on a fait son fermement. merci et à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner.